liggéey bu rafet bii lii rek a tax mu def ko fi dajale mbokkam yi si bis bii yow nag Mbàkke say taxawaay kenn daa amul sa pay sëñ Abdu mii yaa ko jàpp yaa ko dimbali féete ko fu kawe ndax sa sa jéego yii naa xam ne réy ci ñun lool njaboot Seex Masamba gépp nga ko defal ndax bis bi nag ñëpp ko bokk sëriñ Maam Mor ngi fi di suñu kilifa ñun ñëpp sunu ay mag a ngi fi sunu ay baay ngi fi kon sa jéego yi tedd yi nga romb fu bari agsi ba ci moom kon Mbàkke yow la kenn amul sa pay sëñ Abdou Khadir nag sabaaru dugub la fu mu wàcc fu ne am lu mu fa bàyyi li may faral di wax nag ni porte parole moom fonction la bu ñuy jox nit ki mu yor ko waaye li jiitu nag mooy doomi sëñ Abdou Khadir ki nga xam ni keroog bi mu gënee àdduna sëñ Tuubaa daane Ceerno yéexalal say jéego daat ne ko yow mi koy tuddi bi ngay dem ba bi ngay dëpp koo dajal ku ne yaram araamal na sawara kon yow sa teewaay fii fajuk aaju la ci ñun tawfeex la ci nee na bi sëñ Abdou Khadir jógee ci Rasulullaay rek ci la Seex Basiiru Abdou Khadir mii feeñ jërëjëf mu doon na mbég mi nee na xolam daa fees ba mënta wax nee na daal Mbàkke toogaay bii nga toog ak sa jootaay bii nee na doy na ko sëkk teranga na xam ne xolam fees na njaboot gépp a ngi toog ndey géey mii mooy taawu soxna faatu gay moom mu Cheikh Abdourahmane Fall Tilala mi nga xam ni moo wàññeeku keroog ñibbi àjjana ànd ak Serif Tilala ak bu fay ma nga xam ni moo ko sëriñ ci biir ak doomam yëpp kon ñu jébbal sëriñ bi kàddu sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu nee mbokki taalibe fi teew yëpp ñi ngi leen di nuyu di teg nuyoo bi ci loxob sëñ Abdou Wahab Gaye ak mboolem ñi mu sekkal soxna Bintu Masamba ak mboolem njabootu ma sàmba gi ak mboolem taalibe yi Sëñ Tuubaa yi fi teew nee na sëñ Abdou Wahab ñu ngi lay sant bu baax a baax ndax li nga xam ne yàllaa ñu ko boole ci mbokk ñëpp xam nañ ko kon loolu warteef la ci suñu digg ak yow ndax loola mooy li jiitu la ca desaat tam. nee na mooy fonk gi ko fonk ak jàpp gi ba doyloo ko ci ba nga doyloo ko ci sa jëmm nee na te matewuma ko waaye nag ñi ngi ñaan ci barkeep sëñ Touba nee na sëñ Touba nangul nu ko te te nee na sëñ Touba la ndax nee na soxna Bintu Mbàkke mi sa waajur de jàmbaar la woon lool waaye yow itam. nee na day mel ni jàmbaar ko ne woon ci moom rek jàmbaar googu ci yow ndax doon nga ko ci fulla ak doon nga ko it ci ni fonk li nga yor xamit fa nga jëm kon ñi ngi lay feddalil mbokk gi di feddali taalube gi di la sant bu baax nee na ndax nee na yow deseloo dara sa jëmm ci digganteem ak moom Serigne Bassirou Abdou Khadir nee na loolu yëg nañu ko te it jàpp nañ ko dan lay bàyyeeg sëñ Tuubaa mi tax nee na mu mu nangul nu ko te dencal la ko fu yàq yëggul di nuyu sa mboole mbokk yi fi fekk yëpp njabootu soxna Bintu Masamba yëpp di nuyu sëñ Moustapha Fall nee na ndeysaan keroog bi ma ko gisee bi ma ko gisee ci Daaru Moxti Serigne Bassirou nee na bi ma gisee sëñ Moussa Fall ca Daaru Muxti keroog sama yaram dafa daw lool nee ndax sama xel daa dem ca magam ja Serigne Abdourahmane Fall ci laala nee mu ànd ak doomam yépp loolu tamit ñu di ko rafetlu di ko ci ñaanal bu baax nee na di sant yi tamit nee na di sant tamit ñi fi ne ñëpp donte tey jii nee na xatoon na lool ba amoon naa ngantu lu ñëw sax. waaye nag bis bi moom daa toll foo xam ni boo doon ram di ñëwit nee na jar na ko ndax kii nu koy defal nee na moom mi itam nee na sekk man loo xam ni nee na lu ma ko tëlee tëlee sëñ Bass Abdou Khadre neen dinaa ko jëm ba ñëw ndax dama am gàllankoor waaye diggoon naa ko ne ko fii laa yandu waaye nee na buñ ko fekkee te waatee ne incha allah rabbi kon ñi ngi yemale foofu kàddu yi ne ñi ngi sant bu baax di ko ñaan lii mu sumb fii ngir jëm ngir jëmmalee ko way juram yàlla na ca daje ngërëmam te nu yàgg koo taxawee te ànd ko njaboot soxna Bintu yëpp jërë jëf.